li concerné eh, concernant les invest les partis yi leen investir. Mm -hmm. li concerné Bassirou Diomaye ak Cheikh Tidiane Dièye. oui eh, Boun Dionne Mame Boye Diao euh, Aly Ngouille Ndiaye aussi ñu ngi ci même situation bi pourquoi les deux premiers et non. les waaw loolu nag c'est la politique xam nga nag politique politique euh, dina am jamono euh, nga ruser ak aussi nga utiliser sa bopp man dama jàpp ne. Euh, ak lu la bon soo bëggee suñ ci tollee dinañu waxtaan ci candidature euh, ñi nga xam APR la ñu génne sur les flancs de l'APR c'est un autre débat mais euh, dafa am man dans ma conception de la vie politique aujourd'hui dañu am une ligne de fracture dans le champ politique la ligne de fracture moo ngi ci ñi nga xam ne ne bi dañu gëm suñu institution dañu gëm suñu modèle républicain suñu modèle démocratie ak ñi nga xam ne ils mettent en cause ce modèle la même le modèle social d'accord e du question dara parce que xeex la sooy def politique da ngay xam ñi nga xam ne ne bi euh, pour yow bokk leen jubluwaay su ngeen bokkul jubluwaay da ngeen di nekk ci féewaloo ñii euh, ànd da ngeen di ànd xëy na ni ngeen di dox gis bokk leen doxalin waaye yéen bokk fu ngeen jëm ñu ne nag bokk leen doxalin bokk leen fu ngeen jëm bokk leen li ngeen gëm kon xeex yi aussi bokkul ni ngay xeexee kii bokkul ak ni ngay xeexee ke parce que di nga toog ak kii mu wóor la kii xeex la boo xam ne bi da nga koy da nga koy daan mbaa mu daan la mais ñële mën ngeen taxaw ngeen déggoo ëllëg ka ngay déggool ëllëg di nga am loo xam da nga koy sàmm pour ëllëg loolu aussi c'est tout à fait normal. pourtant l'information a couru. Euh... même si sa a été par la suite démenti par euh, Mounir aussi que da ngeen intenté un recours contre Boun Dionne et que ce recours là même euh, allait être porté euh, par euh, par par par Rose Wardini. xam nga loolu nit ñi euh, lu nekk la ñuy wax xam nga man dama naan toujours dans la vie am na lu ñuy wax ak li am su dee dañuy toog Sénégal yi ci li ñuy wax li ñuy wax Sénégal chaque jour dañuy wax. bon loolu ay ay wax la. da ngeen ci dellu ginnaaw. non non on n'a pas fait de on n'a pas fait de recours defuñu ci recours recours yi man maa leen déposé defu ñu recours contre Boun Dionne defuñu recours contre keneen deux recours la ñu def benn bi contre euh, Cheikh Tidiane Dièye benn bi aussi contre euh, Bassirou Diomaye Faye c'est tout su qu'on a on n'a pas fait contre Karim on n'a pas fait contre quelqu'un d'autre. mais su ma la comprendre.